la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën ci kanam ngir mu gën a jëm ci kanam ngir mu gën a jëm ci kanam yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réew seen centre Darou Salam pour la médecine islamique traditionnelle nekk fii ci wetu kaas bi di faj-faj bu dëppoo alquraan ak sunna ci njiitalu Ibrahima Khalil ñaan ñoo leen di may xutba bi ngeen di bëgg a seetaan seen centre Darou Salam pour la alhamdulillahi rabbil alamin وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أما بعد mbokki jullit yi sunu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak nun ci alquran alkarim di wax ne in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mislu nee na su fekkee ne yéen a ngi défendre diine lislaam di jihaad fi sabilillah ba ay gaañu gaañoo ki jam-jam ak ay faatu dal ci seen kaw xam leen na noon ba ngeen jàkkaarloo it lu mel noonu wàcc na ci kaw kawam borom bi teg ca ne wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna annaas fan yi nga ñaay borom bi tabaraka wa taala nee na du ko féetali genn wet ñii day gañe tey ëllëg ñi lay gañe ñii gañe ëllëg ñi gañe lu tax nee na wali yaalam allahu alladina amanu ngir yàlla xam ñi gëm dëgg-dëgg ndax su fekkoon ne borom bi tabaraka wa taala ne ku ma gëm rek mooy gañe kon ñëpp dañuy ñëw gëm lu tax ñu gëm mooy bañ ku leen gañe waaye su la wóoree ne boo gëmee kat léeg-léeg mbir mi dal ci sa kaw ba metti kon ngëm yàlla la fay bàyyi waaye wut nga ñaay bàyyiwu la fa la ca tegu yattaxida minkum shuhada beneen illa ba mooy dafa bëgg it am ci seen biir ñoo xam ne bu ñuy faatu ay shuhadaa la ñu doon ñoo xam dañoo faatu fekk ñu ngi jihaad fi sabilillah wallahu la yuhibu zalimin borom bi tabaraka wa taala waxaat na ne alladina uxrijoo min ñi nga xam ne dañu leen a génne seeni kër nangu seeni suuf ci lu dul dëgg illa an yaqulu rabbuna allah nga xam ne lañ leen noonoo ba tax ñu génne leen mooy tawxiid ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gëm ko ak woote moo tax ñu génne leen seeni kër nee na ñooñee am nañ ay ngëneel yu bare bare bari waaye nag walaw la dafu llahi nnaasa baadahum bi baad la huddimat sawaamiu wa biyaun wa salawatun wa masajidu yudkaru fiha smullahi kathira borom bi tabaraka wa taala nee na su dul woon ak fayonte suñ dalee ci sa kaw nga dal ci kawam kii dal ci kaw kii kii dal ci kaw kii ñuy def tadaafo bu dul woon loolu nee na kon jaamukaay yi yàlla yi sax duñ fi des ay noonu dinañ ñëw bu jàkk yi tas daara yi tere nit ñi sax ñu tudd yàlla borom bi daanee la laay jane wala yansuranna allahu man yansur képp koo xam ne taxaw nga ci santaane yi sunu borom tabaraka wa yàlla moo lay dimbalil boppam inna allaha la qawiyun aziz yàlla mooy ki am kàttan mooy ki am doole mooy ki nga xam ne man manam xajul ci mbindeef kon mbokki jullit yi ñaari laaye yooyu buñ ko settantalee dañuy gis ne dañuy leeral ñaari sunna ci as sunanu rabbaaniya muy ñaari doxalin yoo xam ne sunu borom tabaraka wa daf koy doxale ci lu dul soppiku ba ci njëkk mooy li ñuy tudde sunnatu tadaawul muy mbir yi saxul ci genn wet li da dal tey neex di dal tey jii kenn mu naqari bu ëllëgee dalay dal mu naqari dal keneen mu neex weccent rekk la potu ndaa la rek ku naan jox sa morom mu naan kon noonu la suñ borom bu wa taala tëre mbir yi fii ci àdduna lu tax mooy ngir loolu mën a kontine bañ mën a xam ñi gëm yàlla dëgg dëgg dëgg ngir ëllëg ñu mën a jariñoo seen gëm yàlla googu beneen sunna rabbaaniya bi ci des mooy sunnatu tadaafo mooy jañante gi nga xam ne moo war a nekk ci kaw suuf diggante dëgg ak neen su fekkoo ne waa neen dañ leen a bàyyi ñuy tasaare seeni neen genn kàddu dëgg du jib kon neen kesey tasaaroo su fekkoon ne waa neen muy waa kéefar dañ leen a bàyyi ñu dal ci kaw jullit yi nangu seeni i suuf toj seen i jàkk yàq seen ñu keroche seen i loxo di leen seetaan kon dëgg duutu am waaye nag jullit yi luñ néew néew doole dañuy défendre seen bopp su dara dalee ci seen kaw ñu jeñ ko su ñële jeñaatee ñu jeñaat xam ne su mettee ci ñële mi ngi metti ci ñii parce que yaram moom wenn la rek woo ca dóor mu metti yaar yooyu sunu borom tabaraka wa taala dafa na koo jàngal mu nekk ñaari sunna yoo xam ne yu te bàyyi xel lañ muy sunnatu tadaafo ak sunnatu tadaawul ñoom ñaar ñëpp nag boo leen boolee li mu war a jural jullit bi mooy sax ci diine yàlla ji ak jàppale diine ji ci kem kattanam kenn ku nekk am na noo mën a jàppale diine lislaam kenn ku ne am na noo mën a jàppale sa pas-pas kenn ku nekk am nga noo mën a jàppale sa mbokki jullit yoo xam ne ñoo nekk ci am nattu ak nattu boobu mën a doon borom bi tabaraka wa taala moo dig ñi ko gëm ne dana leen dimbali dimbalul yàlla nag su xasee ñëw lépp day baax loolu moo tax du jaadu mukk ci ab jullit muy naagu xutba bi ci loolu la jëm laa tey as bul naagu bul naagu ci yërmande yàlla bul naagu ci ndimbalul yàlla yàlla mi la digal dara ne defal lii boo defee lii danaa la dimbali yow defal loola te di ko déglu digub yàlla mun taw munta munta ñàkk am lim digee day am kon naagu mooy nga dem ba mu yàgg nga ne man daal sooy boo ma far bàyyi mbir yi mënatu la baax déedéet loolu du melukaanu jullit jullit bi day xam ne mbir mi dana baax lu mu metti metti lu mu tiis tiis day gën a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa yaakaaram <coughs> daan gën a ubbi ko mooy saa bu jullit yi nekkee ci aw tiis woo xam ne dafa dem ba jéggi dayoo danañ wax lu du roog loolu ci kanam kon moom moo diggee ne dana dimbali mu'minoon yi yow kay sa itti mooy fooy jaar ba bokk ci ñooña foo nuy jaar nun ba nekk ay nit ñu gëm yàlla ñoo xam ne charte yi sunu borom tabaraka wa taala teg noo ngi koy dund ci sunu wàllu pas-pas ci sunu wàllu jaamu yàlla ci sunu wàllu jikko yooyu suñ ko defee ndimbalul sunu borom day ñëw ci jullit yi ci lu dul mën a ñàkk ndax yàlla moo ko warlu amul sikki sàkka waaye nag jaam bi du wàllam muy jéem a xam kañ la yàlla di alak ay noonam kañ lay doon wala ndimbalul yàlla kañ lay ñëw loolu du wàllam lii wàllam kay mooy na jëfe diine ji na jëfe ndigal yi na bàyyi tere yi te bépp sabab boo xam ne yàlla dénk ne jullit di ne suñ ko defee danañ am doole ba seeni noon ragal leen bàyyi leen xel sabab yooyu jullit yi nañ ko def suñ ko defee borom bi nee na wa kaana xaqan alayna nasrul muminin moo jël xaq yoo xam ne moo ko warlu moom suñ borom tabaraka wa taala ci ngëneelam akuk mayeem nga xam ne kenn tegu ko ko waaye moo ko teg boppam ne dimbali ñi ko gëm moom ak ànd ak ñoom loolu moo ko warlu kon kooku euh, feddli na ko feddli goo xam ne su fekkoon ne Euh, ab yonent ko wax sax wala malaaka nit ka war na caa mën a am kóolute gu rëy rëy waaye rawatina nag su fekkee ki ko wax moom mooy alqawiyu alazizu aljabaaru almutakabbir mi sunu mu tabaraka wa taala mi nga xam ne laa yujizuhu shay nga xam ne lu mu bëgg mu nekk day nekk kooku su la diggee ne warlu naa ne dama lay jàppale su fekkee ne gëm nga ma kooku jàmbale itteem mooy fu muy jaar ba gëm yàlla fu muy jaar ba def ndigali sunu borom fu muy jaar ba bàyyi tere sunu borom tabaraka wa taala léeg-léeg nag ndimbali ndimbal loolu ak ngañaay lool yi mën naa yeex lool mën naa yeex lool ci nattaleg doomu aadama ndax nattaleg doomu aadama bokkut ak nattaleg sunu borom tabaraka wa taala la ngay lim di jàpp ne lii ay at yu bare bare bare bari la boo demee fa sa borom tabaraka wa taala matut sax ay waxtu lu néew néew la waaye lam digee li am solo mooy jullit bi mu gëm ne luy am la kañ lay am na ko sunu borom tabaraka wa bëgg nan lay amee na ko sunu borom tabaraka wa taala saa bu ko bëggee ak nam ko bëggee noonu lay am amaana jaam bi mën naa xam kañ la léeg-léeg su tàbbee ba noppi walla mu gis màndarga yu wone ne war nañoo mën a gañe waaye nag amaana itam du ko du ci xam dara day jekki ba yàgg ndimbalam fa muy dikkee ci sunu borom jóge ci sunu borom tabaraka taala borom bi tabaraka wa taala moo koy xam kóolute googu li muy jariñ jullit bi su fekkee biir xol bi dem na ba àgg ci wóolu digub sunu borom tabaraka ba amatu ci sikki sàkka lim koy jariñ mooy li ñuy tudde naagu day jóge ci xolam ba set ca wecc balaa bi lu mu wàcc wàcc ak lu mu bari bari du tax mukk mu saali du taxit mu dellu gannaaw waaye lu mbir ma tar-tar day loog moom ci naka ko borom bi tabaraka wa taala di ko jëfe noonu ànd ak yaqiin ci ne lu yàgg-yàgg ndimbal ci moom lay mujj kon xeex bi ci diggante dëgg ak caaxaan ci diggante ngëm ak weddi ci diggante lislaam ak kéefër naka jekk daf fee nekk tey day continuer nag day continuer waaye ñu xam ne ca fin ba ndimmal la ak ngañaay la ña ko yeyoo mooy ahlul xaq ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëgg waaye day fekk ñi def liñ man lépp ñi def liñ man lépp dégg naa kuy ñaan fan yi di wax yàlla wàcceel malaayika yi ñu alag noon yi loolu dëpp wut ak doxalinu sunu borom tabaaraka wa taala borom bi fa mu doon wàccee malaayika yi ca badar jullit yi dañoo jëfandikoo lañu mën lépp ba noppi seenum noonu ëpp leen doole mu wàccee malaayika waaye jullit yi tey ni yor ci ay pexe yor ko ci doole ak alal yor ko ci ay ngànnaay denc ko kooku su borom bi wàccee ay malaayika ñu leen di xeexal du dëpp mukk ak xikma bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu farataal ci ñoom jihaad kon bëre boobu nga xam ne diggante caaxaan la ak dëgg noonu lay continuer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ci lu bari yonent ya ko jiitu woon dund nañ ci lu bari nit ñu baax ñi fi mas ñëw ñépp di jubal ak di woote ci dëgg dund nañ lu bari ci fitna yooyu ak balaa yooyu nga xam ne danañ ko nattoo jaam bi ba borom bi tabaraka wa taala sax nettali na ko ci alquran nee na am xasibtum an tadxulul janna kooku saxaaba yi lay waxal nun ñépp ca la ñuy tàbbi mu ne ndax dangeen yaakaar ne da ngeen di dugg ajjana walamma yatikum masalu alladina xalaw min qablikum te li daloon ñi leen jiitu yéen du leen dal moo ndax dangeen a yaakaar ne da di dugg ajjana yéen te li daloon ña leen jiitu te doon ñu baax du leen dal yéen waxu kay ñooñu lu leen daloon nee na massathumul basaau xeetu ay wu nekk wàcc na ci seen kaw wa darraaw ak xeetu lor wu nekk wa zulzilu jaxase nañ leen teg remblement ci seen kaw xatta yaqula rasulu walladina amanu maahu mata nasrullah ne ba àgg ci ab yonent sax ak ñem àndal ñu gëm ko ñu naan mata nasrullah waaw kañ la ndimbalul yàlla di ñëw kon foofa tar na ba metti borom bi ne ala inna nasrullahi qarib ndimbalul yàlla lu jege la lu jege la amaana doomu aadama bu defee ay calculam ne lii lu sori la waaye lu jege la fi sunu borom tabaraka wa taala innahum yarawnahu baidan wa naraahu qariba suñ xoolee ñoom def seeni i day mel ne sori na waaye fi suñu borom tabaraka wa taala lu jege la yonente bi salallahu alayhi wa sallam benn bis xabaab ibnul arat nee dañoo ñëw fekk ko jamono yi nga xam ne ci la lori yéefar yi gën a tar ci seen kaw ci màkka gàddaayaguñ lu nekk ñu di leen ko won ci àdduna ñu ñëw fekk ko ci keppaaru kaaba gi aleyhi salaatu wasalaam mu jël kaalaam teg ci suuf suunu nee na lenn ci nun ñi ko gëm dikk ànd toog ne ko bi yàlla bi ala tastansiru lana ala tad'u lana ndax mënoo ñaan yàlla mu wàcc dimbalam ndax mënoo ñaan yàlla mu wàcc ndimbalam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen ñe jiitu woon day xeet yi àndoon ak yonent ya daanañu woo kenn ci ñoom ngir ngëm yàllaam mu ñëw ñi gasum pax am leeñ dugal ko ci biir ba ca dënn ba di feeñ lépp ngir ñu bëgg mu weddi yàlla nee na indi am riis mooy li ministre yi di yor di dagg dénk ya ne teg ko ca bopp ba di xar di xar lu tax ngir na weddi yàlla nee na ñu di ko xar ba mu nekk ñaari gaal liy jëm lay jëm nee na ñooñu daanañ leen indil ay jartuy weñ mooy peñe bu gudd ay bëñ ba mel ni ràbb soy ko ci sawara ba mu xonq ñi dugal ko ci seen diggante yàpp ya ak seen yax ya lu tax ngir dañ weddi yàlla nee na lu ca tegu nee na fa ma yasudduhu dalika an diini nee na loolu metti metti tax kenn ci ñoom saalit wala mu won gannaaw diineem nee na ñi leen jiitu woon lii lañ doon dund ànd ak yonent yoo xam ne moom mii di wax ak ñoom ab yonent la boo xam ne moo leen féete kaw ci daraja fa yàlla kon ay àndandoom ñoom it faaw daj nag loo xam ne lu metti la lu ca teg mooy wala yatimanna hada al amr waat naa ci yàlla ne mbir mii dana mat manaam diine jii dana mat ba nga xam ne ab gawar mooy kuwar aw fasam wala gëleemam mën naa jóge sanaa muy dëkk bu nekk ca yaman ila xadra mawt ba ca beneen dëkk diggante bi diggante bu soree la waaye diggante boobu li tax mu def ko misaal dañoo wax ne jamono yooyu mooy fi gën a ñàkk sécurité ci jaziratul arab fi gënoon a ñàkk sécurité ci jamono yooyu mooy diggante Sanaa ak Xadramaut ku fa jaar loo yor bala ñu koo jël dañ lay rey ba noppi door koo jël mu ne leen jamono ngi ñëw joo xam ne nit ki dana war aw fasam wala gëleemam teg ca marchandise am du ànd ak kenn waaxu jóge Sanaa ba àgg Xadramaut te du ragal ci yoon wi lu dul yàlla mi ko bindoon ah xanaa ak till goo xam ne mën naa fekk mu jiital ak jur till ga ñëw till ga ñëw songu jur ga fàdd ci wenn jur loolu lay ragal waaye doomu aadama yuy ñëw di ko song dootu ko gis loolu yonente bi sallallahu alayhi bi mu daataan génn loolu am na bi saxaaba yi ñëwee taxut ñuy wax kon loolu ab dig la boo xam ne fi mu sottee soriwut lu mu ca teg alayhi salaatu wasalaam nee na walakinakum tastaajiluun nee na da ngeen a yàkkamti da ngeen a yàkkamti doomu aadama dafa xawa a yàkkamti ñaan sax bu koy def bu ñaanee yaari yoon gisut la mu doon ñaan mu ne man sama ñaan gi nanguwut xam naa ne nangam ak nangam moom gaar wala nangam ma nangam moo xew fekk sunu borom tabaraka wa taala ni muy tëree mbir yi leen lu nekk da ko wutal waxtoom te ngay dox ndànk-ndànk ba ngay àgg ca waxtu woowa mooy li gën ci yow nga ñaan dara rek daal di koy gis wala nga séentu dara daal koy gis yeexe googu sunu borom tabaraka wa taala di yéexe ndimbalam waree su koo yàkkamti ndax lu ami njariñ la njariñ yooyu bokk na ca mooy ñi gëm yàlla représenté l'islam ci kaw suuf représenté imaan ci kaw suuf ñoo ñooñu dañ leen di fàttali ña leen jiitu woon te doon ñu baax ne leen ñooñu kat sonnoon nañ metti woon na metti woon nañ waaye ñoo mujjoon gañe kon dox leen ca yoon wañ doxoon ñoom itam mu metti ci yéen ngeen sonn ngeen sonn te xam ne ngañaay li mu ngi leen di xaar ci kanam ngañaay li daa doon loo xam ne ci bopp yoon wala nekk ku doxul ba àgg ca doo ko fa fekk doo toog di xaar naan ngañaay li di ñëw mu déedéet yow yaay dox yaay dox ndànk ba ba nga ciy àgg kon dalay fàttali loolu ñaareel ba moo di ndimbalu sunu borom tabaraka wa taala ngir mu wàcc ci kaw jaam ñi day fekk jaam ñi li leen yàlla sant ñu def ko li leen yàlla sant la ci jiitu mooy defar seen bopp seen xol yii ba yàlla rek nekk ci muy gëm yàlla wéetal ko topp yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu am yi muy def yi mu fi andi jikkoom yi rafet yi mu fi andi jël ko takkoo ko yooyu bu amee ba noppi li yàlla sant jullit ñi war a préparer seen bopp ba seeni noonu duñu leen yàpp duñ dal ci seen kaw ñu fexe ba mel noonu wa aiddu lahum mastataatum min quwa la borom bi tabaraka wa taala wax noonu yi préparer leen lu ngeen man ci xeetu ngànnaay doole ngànnaay ak doole doole ji mën naa làmboo ngànnaay mën naa làmboo xam-xam mën naa làmboo lépp loo xam ne mooy yëkkati aw xeet jamono la ñuy dund joo xam ne euh, ku ku feebal ku feebal danañ jaar ci sa kaw jàll moo tax lislaam bi muy wax turhiboona bihi aduwallahi wa aduwakum baat boobu ñu jël ñaawal ko loolu muy irhab la ca lislaam jublu waxul ne jóg leen song nit ñi dal ci seen kaw waaye yéen préparé leen seen bopp ba kenn du leen song na ngeen am ci ngànnaay ak doole akub xam-xam ak civilisation ak jëm kanam goo xam ne ñépp dañuy def siiw mucc ci yéen waaye kenn du jóg di leen faagaagal di dem noonu la ñuy dugale rahba ci xoli e, seeni noonu loolu mooy e, al su fekkee nag jullit yi dañoo bayliku liñ am yëguñu ne am nañ ko seenub xam-xam ñu wan ko gannaaw préparé wuñ ay ngannaay wala bu ñu amee ay ngànnaay ngànnaay def doy wuñ ko dara sooy ba nga wax ko su boobaa seeni i noon amuñu benn rëhba benn tiitaange buy nekk ci seen i xol ñu mën a tëb dal ci seen kaw faagaagal leen suufeel leen bokk na ci yeexe ndimbal li muy jariñ mooy ixtibaarul muminin wa idhaarul munafiqin feeñal ñi gëm yàlla dëgg-dëgg ak ñi nga xam ne ay naafeq lañ loolu su fit na ñëwul kenn du ko xam su fekkoon ne yàlla ak i xéewalam ak ngañaayam ak yëpp dañ ne boo ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah rek yëpp daal di tuur mel lépp taw kon ñëpp a yem kon yoon woowu ñëpp a cay daal di dox waaye nag aw yoon la woo xam ne doonut yoon wu lewet nekkul yoon woo xam ne dañ ca lal ay fleur ngay dox ndànk ci kaw fleur déedéet ay dég moo ca nekk yoo xam ne da dox muy metti waaye la ca borom bi jublu mooy mbooloo mi ñu bari bari dara ñëw dara dana ñëw ràññeele leen ñi xam ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dëgg-dëgg ak ñi nga xam ne seenu ngëm weesuwut seeni làmmiñ loolu borom bi wax ne ma kaana allahu li yadara al muminina ala ma antum alayhi yàlla du bàyyi ñeneen gëm nañ ko mu noon rek de xatta yamiiza al xabiisa min al tayyib faaw ràññeele ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñu ak ñu baaxul faaw mu ràññeele leen nu koy ràññeele bu lu metti ñëwee ñi xam ñi nga xam ne seen pas-pas àgg na ci man koo yanu ak ñi nga xam ne suñ ne leen xuux ñu daal di daw ñeenteel ba mooy yéexal ndimbal li léeg-léeg day am njariñ lool ci jaam bi ndax luy toroxal bakkan a ngi ci doomu aadama ji su dëkkee ci ngañaay bu yàggee rek mu bew day jàpp ne doole ji ci moom la nekk day jàpp ne mooy boroom man-man bi mooy boroom pexe yi mooy boroom xam-xam bi mooy borom alal ji waaye su fekkee ne pexe yaa nga fa xam-xam baa nga fa alal jaa nga fa yépp nga fi ba noppi ñi ñëw teg la nattu bu diis boo xam ne dana la pousser nga delluwaat ci sa borom di tàllal say loxo di ñaan di toroxlu suufeel sa bopp loolu yi amal njëriñ jullit bi ndax dana tax mu gën a wéral pas-pasam digganteem ak boroomam gën a dellu ci boroomam gën a jëfe ay digalam gën a bàyyi ay tereem te loolu mooy diggal ci ab jullit day mel ne loolu boo ko seetloo sax moo tax boo xoolee histoire l'islam ba mu taxawee ba léegi diggante yi nga xam ne ci la jullit yi di am ngañaay ak doole moo gën a gàtt diggante yi nga xam ne ci lañ leen di ëppee doole di leen ci suufeel lu tax mooy sa jamono yoo xam ne suufee nañ dañuy dellu ci seen borom jamono yoo xam ne ak kawe dikkal na leen dañu tàmbali bew tàmbali di caaxaan tàmbali di fott loolu moom jigut ab jullit mbokki jullit yi lii lépp suñ koy wax di leeral ñaari sunna yooyu muy sunnatu tadaawul mi weccente gi ñu weccente métit yi ak jañante gi ñu jañante ku déglu li xew ci jamono jii du nekk ci sun mbokk yële nga xam ne ñoo nekk ca almasjidul aqsa ak lay dox diggante seen diggante ak seeni noon danga ci jëriñoo ci ñaari sunna yooyu ne benn bu ci nekk ba léegi mi ngi taxaw ndax sunna la boo xam ne ay sunna yoo xam ne sunan rabbaaniye yi seeni melokaan mooy laa tataxawalu wala tatabaddal amul tabdil amul taxwil moo tax kuréel su néew ci ay jullit noon yu bare bari te bari doole ñu mën a tëb dal ci seen kaw teg leen loo xam ne ci histoire kenn mosu leen koo teg loolu day wane ne tadaawul bi nga am ba léegi maanaam weccente dañ lay dóor tey ëllëg nga dóor su mettee ci ñi metti ci yow metti ci kii metti ci yow lu mënta ñàkk la ba tey it gi mënta ñàkk su fekkoon ne saxaayi na yooyu muy yahud yi dañ leen a bàyyi ñuy def lu leen neex fañ jëm ak jullit yi mooy mboolem al mashriqul islaami muy Makka ak Madina ak réewi jullit yi nekk foofu yépp daan danañ ko jël boole ko ci seenum réew ba fii ni toll di wax ak yéen gëm nañ ne xaybar dañ fa am àq joo xam ne dañ ko war a jëli ci biir ci wetu madina biir baqe ci boppam gëm nañ ne la ko wër lépp ci ay suuf ci biir madina su mënoo war a gëm nañ ne ñoom ñoo ko moom ba su jonne tey te dañ ko war a jël ñu ngi seen benn carte géographie boo xam ne dañ ne moom la ñuy tudde euh, dawla israil al kubra muy réewum israil mi gën a yaatu boo ko xoolee réew yooyu yëpp dañ ko ci dugal ba ci yaman jàpp ne foofu la war a àgg su amul benn kuréel bu toog di jaamaarloog ñoom suñ la joxee nga jox leen suñ la joxaatee nga joxaat leen dañ leen di toog di leen seetaan noonu rek yaatal di ñëw di yaatal ñëw ba faagaagal ñëpp yóbbu leen foofu lañ jëmal moo tax faw dana am li ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxe boo xam danañ taxaw di jihaad fi sabilillahi jaamaarloog noonu yàlla yooyu yi nga xam ne yàq leen tax a jóg toroxal jullit yi suufeel lépp loo xam ne lislaam la ak diine faw am ñu jaamaarloog ñoom loola lu mënta ñàkk la bokk na ci li nga xam ne moom la jullit yi mën nag tey mooy ñaan ñu mel ne nun ñi lan man muy participation boo xam ne bu mun te ñàkk la mooy ñaan suñ gisoon ay yoon yoo xam ne boo ci jaaree dugal fa ay dërëm dana àgg ci ca ñooñee nga xam ne dañoo màbb seen kër yi toroxal leen yàq ba amatuñ luñ lekk amatuñ luñ naan dana mën a àgg ci ñoom ñu mën leen caa xett li loolu day jaaru ci jullit lu mu am mu def ko ca waaye ndax lu mel noonu am na allahu alam ngànnaay li nga xam ne daal moom laa yuxlab mëne su ko not mooy ñaan te it laa yuslab mëne su ko nangoo ci loxo jullit bi foo ko mën a dugal ñaan a nga fa kon ñaan moom ñu bañ koo fàtte rawatina ci lu mel ni waxtu yii bis yii bisu ajjuma ngoonu ajjuma waxtu yi nga xam ne yëpp waxtu ñaan la waxtu julli suñ noddee bala ñëw taxawal lépp lu jullit man ak fu mën a nekk jaadu na mu ñaaral bokki jullitam yooyee allahuma munazil alkitab wa mujri alsaxaab wa haazim alaxzaab ahzim alyahuud alsahaayina wa ashyaacahum wa arina fihim ajaa'iba qudratika ya rabbal aalamiin wa farriq jamcahum wa xaalif bayna kalimatahum wa alqi fi quluubihim alrucb wa alqi calayhim rijzaka wa cadaabaka ilaaha alxaq allahuma innahum qad bagaw wa tagaw wa tajawazu fi alzulmi waludwan fajcal aldaairata calayhim wantaqim lilmuslimin almazlumin minhum wajcal tadmirahum fi tad islamique traditionnel nekk fii ci wetu kaas bi di faj-faj bu dëppoo alquraan ak sunna ci njiitalu Ibrahima Khalil ñaan ñoo leen di may xutba bi ngeen di bëgg a seetaan seen centre Darussalam pour la médecine islamique traditionnelle nekk fii ci wetu kaas bi di faj-faj bu dëppoo alquran membre yi ci ci njiitalu Ibrahima Khalil ñaan ñoo leen di may xutba bi ngeen di bëgg a seetaan seen centre Darou pour la médecine islamique traditionnelle nekk fii ci wetu kaas bi di faj-faj bu dëppoo alquraan ak sunna ci njiitalu Ibrahima Khalil Niane ñoo leen di may xutba bi ngeen di bëgga seetaan seen centre Darou Salam pour la médecine yeeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu senegaal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.